Waktu Tumbal waktu bi jot na léegi sama ngi jot dan Samba mu tëj dafa am benn kaddu rek moo leen di ñaan rek laa leen di ñaan dafa am koo xam ne moom ak ñun ñoo doon ànd presque moo parti bi fii ñu koy ne Alassane Diallo te ñëpp xam nañu Alassane lan moo ko téye Alassane dafa defoon accident looloo ko téye day bëgg a ñëw ak ñun sànq mu ngi woote xelam yëpp mu ngi fii maa ngi ñaan waa Koungheul ngeen ñaanal ko ndax mu am wérgu yaram mu a def activité te boo leen ñaanee gëm naa ko ñaamil na jàpp ñaanal leen ma Alassane ndax mu trouver santé bi mu trouvé wérgu yaram loolu laa am pour may sant Assalamualaikum gagné nañ ba paré gagné nañ ba paré laaj leen lu tax ma wax ko dañ ne ndaje jamm bo woté jigéen ñi jitu ca xalé yi top ca gagné ngeen on a gagné et ma ngi remercier wa kumbal ñëpp wax deug ak euh temps bi na lol lol lol on a beaucoup hésité parce que tu es encore la tombel monsieur am yakarne buñ len woyé ci naaj wu ak luñ len woyé ci yu euh, euh, doy parce que dara newu ci dole ñu wuyu si à tout moment quand on vous appelle au devoir devoir là parce que il faut élire Bassirou Diomaye Faye les femmes ont répondu présentes la jeunesse a répondu présente et jeunesse bi nak lolou mo len war xam ngeen et xamna lu ci jeunesse bi ci dañ ko rek waye na ndax am jom am fulla am fayda te xamoo qu'est-ce qu'on a servi à la jeunesse pour ñu tekki xam ngeen lan Jakarta est-ce que Jakarta wax dëgg ak yàlla mën na yorub réew non on dit la vérité c'est non xale yi jàng nañ fu ñu war a jàngee yar nañ leen fu ñu leen war a yaree ñu dem bo amuñ dara lu ñu leen wax ne amuñ liggéey bu ñu leen jox nañ leen wutal permi ngeen dawal Jakarta loolu moo poussé xale yi a prendre la mer pour mën a tekki ji feneen fii nag mën nañ fi tekkee loolu la Bassirou Diomaye fay wax loolu la ko wax te nag programme bi ku ko jàngulit dégg nga as tuuti lu leen Bassirou jokkil ci ci programme bi Bassirou doomu béykat la maa ngi suivre barke démb mu ne 150 mètres Dakar sama 300 mètres kaw a moo ma ko gënal parce que dinaa toog dégg sama xar yi di di jooy dégg sama fas yi di jooy ñun kooku lañu war a fal parce que kooku xam na lu ñuy dund waaye bu ñu falee koo xam ne sama gars yi mos ta génn dakaar moom bu génnee avion la jël dem New York dem Paris kooku buñ ko falee danañu gestu il faut arrêter il ne faut pas euh, euh, euh, suñu bulletin yi ñu jox ko Amadou Ba il ne le mérite pas il ne le mérite pas donc Bassirou Diomaye Faye mom, mooy ku ñu war fal ah danaa dugg ak un peu nak, comme dañuy voter si benn bulletin xeebuñu ko donc c'est pourquoi may ñaan suñu rakk yi may ñaan suñu yaay yi ñu prudent bu ñuy carte yi bu ñuy tànn bulletin de vote parce que c'est 19 bulletins bu ñu yàkkamtee tuuti rek jaxase jël leen seen temps xool bulletin yi bu baax a baax a baax xool bulletin bi ngeen di tànn neex na xàmme moom rek moo ci xale bu am sikkim Bassirou Diomaye donc c'est de votre propre liberté ngeen xool Euh, bulletin yëpp tànn bu leen neex mooy njëkkee ci Basiru soog a tànn yeneen yi wala bu Basiru nekk en premier tànn leen jël Basiru def ko ci kaw boo leen en cinq ans ah, ne ne nañ mën nga tànn juróom comme mën nañ tànn juróom nag njëkk leen tànn seen waaju ba pare ngeen tàgg ngeen tànn yeneen kaat yi teg ko ci suuf boo leen demee ba si gatché bi bayi len carte yi ñu wad Basiru ngeen duwel ko ci enveloppe légui ni ah euh, Sidibé dana euh, dana leen def ben démonstration pour que seen bulletin yi bañ a seen vote bi bañ nul parce que c'est important enveloppe bi boko collé nul na bo euh, amna nokoy noo aussi bulletin bi apparaît mën nañ mën na nul donc Sidibé dana def ben démonstration bu ndaw parce que c'est important ñu baña perdre ben bulletin Euh, li wax tax ñi war a fal Bassirou Diomaye lenn la parce que ñu ngi wax euh, depuis 2000 mais wax dëgg yàlla politique bi ñuy dund sedd boobu ñun juddooguñ ñu ciy dem nag politique ku ah groupe la rek yoo xam ne ah dañuy paasante bal bi xale yi ñuy wax nii mooy Sonko muy Bassirou ñu ngi woon ci biir système bi di xool système bi nu muy doxee di xool xam ne système bi Sénégal mérite plus que ce vie xale yi xam nañ xam nañ ñaata lan moo nekk ci alal ci Sénégal jàng nañ xam nañ alal bi lan lañ ko war a yoree ba jëriñ Sénégal yëpp léegi nag xale yooyu ñoo gis nu ñuy doxalee alali réew mi. ci mbiru impo ci mbiru ressources yi ñu ne ah lii il faut ñu def suñu kamtalaayu kàttan boom mu dàkk mooy si naka nañ créer suñu parti politique bu ci yàlla defee barke ñu taxaw jàmbaarloog lii boo leen déggee Ousmane Sonko waxam yëpp nañ jàmbaarloog lii. donc jàmbaarloog lii nag moo ko waral tolof tolof bu nekk dund na ko léegi nag dernier virage lañ toll maa ngi doon waxtaan ak suma benn xarit léegi ku jege Ousmane Sonko la maa ngi gis benn sorteem léegi mu koy def bii nag mooy dernier suñu sànni tàccu buñ ko ratee rek c'est la catastrophe parce que buñ ko ratee ba gars yi jotaat système bi mooy fuñ ñu jëmalee dara du baax donc nañ def suñu kamtolaayu kàttan voté Bassirou Diomaye fay ñu gagné au premier tour gis nga premier tour bi na écart bi gudd parce que bu Bassirou Diomaye amee 51 pour cent du Ba am 48 ñu jaxase carte gi. donc Bassirou minimum 65 pour cent la war a am bu ko defee wax ji jeex na donc à partir de vingt heures gars yi ndënd yi jóg euh, wéykat yi jóg ñu wéy Bassirou au palais euh, jàmm ne ñooy ah maa ngi wax aussi que vote aussi jàmm ak salaam la nag c'est nous dans nu fii jàmbur raxuñu vote bu ñuy voté ah suñu rakk yi suñu mag yi suñu cousin yi ñoom ñooy voté ñoom ñooy votel beneen candidat loolu nag mooy démocratie buñ demee ci vote bi nan voter suñu candidat ci yar ak teggin ñu respecté wante jarul xuloo jarul xeex jarul ŋaayoo jeunesse bi daal luñ leen di ñaan mooy discipline sécuriser vote bi ñi vote ci jàmm comme ça à vingt heures ñu ne Bassirou Diomaye fay président du Sénégal ah loolu laa amoon lu may yokk ci yëf di leen di gërëm bu baax a baax a baax vraiment si seen taxawaay ah, Euh, dafa am nag benn pacte buñ signé ak waa te xam naa ci vote bi ngeen ñuy mayee doole suba ñu mën a toog ak waa Latmingué di wax ak ñoom les yeux dans les yeux xam ngeen pacte bi lan la Latmingué ils ont cinq bureaux de vote dañ ne ñoom danañ am 90 pour cent bu lat mee ngay amee quatre-vingt-dix pour cent ñun nañ am quatre-vingt-quinze pour cent bu suba affaire lampadaire yi ñu mun a taxaw ak ñoom na leen sama gaay foo leen def lat mee nga ñaar def leen kumbal benn donc yéen yéen ñu ko war a mën a may suba ginnaaw suba dimanche vraiment ngeen voté Diomaye pour ñu gagner à quatre-vingt-dix pour cent au minimum maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen remercier bu baax a baax